Tapera W d'école au Sénégal D'accord À école e, au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape école au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله waala alihi wa sahbihi wa sallama taslima moo ko ñu dellu dellu siwaat nañu yéen fii ci école au Sénégal jàmm yi ne wéel ak jàngale mu dooroon nañu ko ak yéen ci jamono yi nga xam ni moo wees yëpp ci lañu nekk waaye dañu ko fas yéene wéyal incha allah nu nekkoon ci matière bi nga xam ne mooy alquranul karim moo ngi woon ci lecture bi moo ngi woon ci mbind mi nekk ci lecture bi waaye noo ngi woon ci li nga xam ne mooy toog di ko tari waaye noo ngi woon itam ci toog di waxtaanee dikkuk alquran ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mbirum kitaabullahi téere yàlla bi nga xam ne mooy kéemaan gi waaye téere yàlla bi nga xam ni itam nag mooy mojisa gi mooy lu ñëpp lott ci indi ko waaye mu ngi ci wéy ni ñu ko doon jàngale ci arab waaye di ko wax ci wolof tey nag nu yegg seeg yéen ci bu dee ab tàmbali ma ne tàmbali lay doon ndax ginnaaw dañu ci tudd wolof te nu nu di ay wolof te ñi nuy jàngal alquran wolof a ci ëpp jàngalew nu ko ci arab waaye baati alquran yi mooy baati arab ndax borom bi mu ne quranan arabiyan dama ko def alquran mooy arab waaye kon yàlla dimbali nu ba boroom xam-xam yi nu fi jiitu woon di sunu mag ñi nga xam ne déggoon nañu arab dégg leneen waaye noonu lañu ñu déggee woon wolof ñi ci nàmpoon wolof ak ñi ko ci nàmpul ñépp làkk wi nga xam ne moom la ñuy làkk ci sunum réew fexe nu ba man ci alquran ba dàq ko arab yi nga xam ne ci seen làkk la ko yàlla wàccee woon waaye dem ba di ci def ak ñoom concours yoo xam ni ñun ñooy jël la xam ne mooy raw gàddu ga ñun nooy jël pied ñun nooy nekk première ca concours alquran ba ba nun Sénégal yàlla baaxeenu nu jël euh, raaya wi nga xam ni mooy raaya wu mag wa ci jongante ci alquranul karim waaye kon muy sagu yeneen làkk yi góor góorlu ba yegg foofu waaye di sagu làkk wolof bi nga xam ne tey noo ngi jàngale alquran te génnuñu ca làkk ba ko yàlla wàccee woon waaye fexe nañu ba sunu làkk bii sunu lakk wi nuy làkk sunu borom dimbale nu ci ba nu di ci teqantal alquran teqantal googu la ñu suñu borom tabaraka wa taala santo bi mu ne afala yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaluha ndax da ngeen a teqantalul alquran dëgg-dëgg wala dañoo tëj seeni xol pour pour alquran te tijji ko leneen sunu xol yi dafa tijjeeku pour lépp waaye dafa borom bi nee na dafa am xol yoo xam ne dañoo tijjeeku pour lépp ba mu des alquran kon ñun yàlla ubbil ñu suñu xel yeeg suñu xol yi waaye ubbil suñu la tekkil ñu suñu làmmiñ yi macha allah ba nu di ko wax ni ko yéene ko yàlla wàccee woon waaye jàngale gi boo ko dee jàngal ki nga xam ni nag moom miinagul xamagul xëy na jàngagul làkk wa nga xam ni sax. ci la ko yàlla wàccee woon waaye yow nga mën a fexe ba jàngal ko ko ci sa làkk wolof ba mu mën ko ci lakk woo ko yàlla wàccee woon ba mu dàq ko ña juddu woon ci làkk woowa nampoon ko ndax maam Moussa Ka nee na woon Seexul Xadim sunu boroom daf ko tàggatal lakk làkku arab ba nga xam ne moo fa xañ nampoon ci nisa wala arab waaye sunu borom noonu lañu tàggatale itam lakk wi nu dégg ba nu mën cee jàng alquranul karim lu tàmbalee ko ci turi saar muy téeméeri saar ak fukk ñeent benn bu ci nekk am na nu la ko wolof di jàngale ba bu ñu la nee yow alquran ñaata saar la nga ni téeméer ak fukk ñeent 114 saar la ñun la mooy ban ban nga ne sorotu baqara xale bu ñëw tey di jàng si dégg turu sorotu baqara doo fa nekk naan ko baqara nag wala demee woon nii def naa jàngal ko histoire ba tey déedéet li mu tollool tey mooy xam turu saar wi tey wax ko ko tey ñu wutal ko aw tur nag ci wolof di ko wooyee mbër njaay mbër la ñuy wooyee bàqara surtout bàqara boo demee ca daara ja mag ñi boo nee nu mu tudd dañ naan la yow mi nga xam ne wolof nga wolof yaa ngi ko wooyee mbër njaay moo ci man ndax moo ci ëpp moo ëpp ci saari yi ayatul kursi mi nga xam ne nangami junniy malaayika ñoo ko gunge keroog bi ko jibril di indi ci biir saar woowu la nekk turu yàlla yaa ngi ci macha asmaulahi yi du jeex waaye kaddu yàlla yi nga xam ni moom la yàlla wàcce suratu baqara moo tax wala fi tuddee ko mbër waaye doyatul sax dañ ko wutal aw sant di ko wax mbër njaay waaye dinañu ko tuddee itam bikru ndax boo demee jàng ci biir saar wa na awaanun da nga koy fekk ca ba yàlla di jàngale istuwaaru nag wa yonte yàlla Muusa ak nitam ña kon kooku di baqara moom la ñuy wax mbër njaay waaye di ko wax bikru saar wa ca topp mooy ali imran wala fii boo demee ca daara ji mag ñi ñu ngi ko tuddee gëllaay gëllaay lañ tuddee lañ tuddee saar woowu muy ali imran di njabootug imran ga di famille imran famille yonti yàlla imran yàlla tuddee ko aw saar ci alquran na mu tuddee aw saar ci alquran yonti yàlla daawuda muy suratu saat googu nga xam ni wala fii yemuñ ci daawuda ja waaye dañ la naan njombaan moo tax foo tuddee turu daawuda dañ naan da daawuda njombaan wala fi nag saar woowu bu fa eggee dañ la ko naan saar wi moo tudd njombaan mooy suratu yàlla bi ko tuddee Ali njabootuk Imran ga wala fii boo demee ni saar wi mooy wan dañ naan mooy galaay suratu ni ñu tuddee jigéen tey tur woowu la lakk ca arab saaru jigéen ña suratu Maida di saaru ndab la taabul ba defoon ñam wa daan wàccee kaw asamaaw di wàcce kaw suuf ñu xewlu ba noppi ñu yéegalaat taabal ja mu dem débraché ko mu jëm kaw asamaan boobu nabak jooju taabal moom ca la masa amee ca la jëkka amee ca la mujj amee muy taabal ju ñuy wàccee seen ko muy wàcc di ñëw ànd ak ñam bu ñor xom tànk jël di saxar macha allah ñëpp xewloo xewloo xewlu ba doyal rek taabal ji yëkkati ko waat dellu saar woowu mag ñi ñu ngi koy woowee saaru njoogu mooy suratu maida suratu maida googu di njoogu lu ca topp suratu tawba moom ñu ngi ko tuddee baraan baraan la ko tuddee baa ak raa ak alifa ak ann muy baraan baraan la ñu tuddee suratu tawba eh, danañu la koy tuddee itam baraa ndax baraatun minallahi la saar wa tàmbalee moo tax muy suratu tawba dinañu koy wooye tawba ndax am na ca itam euh, asalaasatu lazina xulifu ñett ña nga xam ni itam nag euh, amoon na histoire ba xewoon yeggaguñ ca loola da tax na danañu koy wooye saaru tawba suratu saaru tugga waaye danañu koy wooye itam nag euh, sa suratu suratu baraa waaye wolof yi da boo demee ca daara ji ñu la nu mu tudd ci wolof nga ne baraan lu ca topp ñu ne suratu euh, suratu Yuusuf suratu Yuusuf moom mbargaan lañu koy wax ah turi wala fii ci fii danga nga ciy miin buñ nee la Yuusuf rek Yuusuf rek dañ da ca tegal mbargaan defal la ko mu nekk ab adresse defal la ca mu nekk aw dàkkente mooy mbargaan mooy suratu Yuusuf boo déggee mbargaan rek xam ne yoru suratu Yuusuf lañ lay wax boo déggee ñun la baraama mbaa biram mbaa birima suratu Ibrahima la waaye nag dañu koo dagg wala ko Ibrahima moo dégg rek koo dégg ñu naan ko biram wala wala biraama rek Ibrahima la tudd moo tax wala fii boo demee ci suratu Ibrahima ne ni suñu la saara bi moo tudd biraama wala birima waaye da ñëw ci suratu Kahf ñu tuddee ko njenge suratu Kahf yi njenge la ko tuddee suratu Maryama Maryam lañu koy wax moo tax. ba ñuy wolofal di la limal ay aaya ci biir saar yi ni la aaya sàngam saar sàngam rek la ñëw baat sàngam nangam yoon la ñëw ci alquran te birab sàngam la nekk wala leer naa ñu laay wax yow bu fekkee déggoo wala fit mën nga laajaat danañu la ko leer laatal ba mu gën la ko tasal indi la yeneen baati wolof ba lii may wax bañ ñu diis ci yow saar sàngam nangami yoon aaya sàngam nangam yoon la ca la ñëw ci alquran baat sàngam nangam yoon la ñëw ci alquran birab sàngam la ne waaye nangam lañ koy tuddee ci olof ba tax nga mën koo tënk ñi lañ koy tënki dañ naan laysal birru mu taawloo laan njaay laan moom nga xam ne mooy bàqara te ñu di ko wooyee mbër njaay di ko wooyee laan njaay laysal birru bàqara kese la ñëw moo tax ñu ne laysal birru mu taawloo laan njaay la tublu wan na boo ko gisee ab aaya la ci alquran ma nga ñëw ca suratu ali imran ñun la la tubluwan na gëllaay wabudu dafa bare ci suratu nisa dañ naan la wabudu nga jigéen allaha turu yàlla boobu ñu allahu ismu jalal boobu dafa bari ca suratu nisa ñu la wabudu nga jigéen laaxoo nga jigéen inna allaha faaliqul xabbee nga lan am inna allaha faaliqul xabbi suratu lan am la nekk xanaa am moomu nag ñëwaguñ ca danañu la wax aw turam moom itam ba gis nga ba mu la nee maida daf la ni maida mooy njóogu waaye ba mu ñëwee ci wolofal di la nettali turi wolof yi tegleelu la saar yi daf la dafa jéggi maida dafa jéggi yeneen ñëw jox la suratu tawba ne la moo tudd baraan waaye daf leen inna allaha faariqul nga lan am wa surifat waktub lana aw xayna naa yépp nga laraaf ndokkee laraaf mbër séddooti na saa yu mbër séddoo coow la nom wala araadul xuruja nga baraafa minhum yaar yépp nga bara kii baxru jimbi kii baaru fóori lil la si na yunus su ma ñëwee ci turu baaru ji dinaa la leeralal ci wolof ba tey lu ci xaw a diis ci yow waaye maa ngi yow ci sorotu Maryam bi nga xam ni ñu ngi koy wax ci wolof Maryam mareem lañ koy wax duñ la ne mariama rek yem ci jaar quran bi doon waaye dañ la koy wala falal ne la mareem moo ko déggee da nga xam ne suratu mariam lañ lay wax la suratu soara moo tudd azullatu yow ma zullati azullatu baat boobu dafa ñëw ci alquranul karim waaye dafa ñëwee ca suratu soara moo tax ñu tuddee ko saar wa suratu soara moom la ñuy woowee ci wolof naa boo ko déggee ñun la zulla rek xamal ni eh, suratu soara lañ lay wax zula def zula faa bari bu ma ñëwee ci kaw di buñ ñëwee ci kanam dinaa la leeratal ñu leeral ñaata baatu zulla moo ñëw ci ak zilla li mu ñëw ci alquran ak yan saar la ñëw waaye soara kenn da ko caa ëppalewut muy mooy ta boobu nga xam ne dafay am point ci kaw muy za la za boobu nga xam ne doon na nañu ko jàngale ci bi nuy bind di la wax za boobu ak bu nekkee ta nga xam ne dafay nekk benn saat ñu teg ci benn alif samp ko ci mu nekk ta ta boobu buñ ci tegee point muy ra ra boobu nag ci lañuy ñuy bind zulla zulla boobu nag moo tax dafa bari ca suratu soxra ñu tudde ko suratu fatir nga xam ne yaasina topp ci moom suratu fatir dañu ko tuddee dañu ko tuddee nan nu ñu koy wooyee fandaak lañ koy wooye boo demee ci daara ja ni saar wi nu mu tudd ci wolof dañ lay wax ne sorotu sorotu fatir mooy fandaak nga ñëw sorotu yaasin nu mu tudd ñun de boo ñëwee ci daara ji di ko laajte ci wolof dañ naan ne sorotu yaasin yaasin mooy jaal jaal moomu nga xam ni yaasiin turu góor la waaye turu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la waaye dañ la wax ni ni aw jaal di mel noonu la suuratu yaasin mel mooy ni jaal di mel mooy bañ dafay nekk fee bañ nekk fee bañ bi woon ci diggante bi dañ bu ko defee ñun la kon dafa mel nit ni ñu ko bindee boo bañ a juum ca bindin wa ñu ne la jaal nga xam ni suuratu yaasin la suuratu yaasin ñu tuddee ko jaal ba jaal woowu ñu di ko wooyee sax jigéen yaasin itam ñu di ko fi wooyee jigéen waaye yaasin danañu ko woy itam góor ndaxte turu sayiduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam am na it buñ duggee ci alquran ñëw ci loxo danañu la tekki leneen waaye tey lii moom tax a jóg ci fii la yem ndax alquran daf ni yaasiin wal qur'aan il xakiim innaka la minal mursaliin ala siraatin mustaqim www.suvidecolesénégal.com